benn korent benn wàll ci lindiin di bataaxal bu jëkk bi yàlla may pool mu bind ko waa korint man pool ndawul kirist yeesu ci coobareg yàlla man ak sosteen sunu mbokk noo leen di bind yéen mbooloom yàlla mi dëkk korent nu ngi leen di nuyu yéen ñi yàlla sedde boppam jaare ci kirist yeesu yéen yàlla woo ngeen sell boole leen ak ñi nekk ci àddina sépp tey tudd turu sunu boroom yeesu kirist mii seen boroom di sunu bos ne leen yàlla sunu baay ak yeesu kirist boroom bi may yiw ak jàmm duma jóg ci di sant yàlla sama boroom ci seen mbir ndax yiw wi mu leen may ci seen bokk ci kirist yeesu ndaxte ci yiwu yàlla yépp ngeen woomle ci kirist muy ci wax mu ci xam-xam ndaxte li nu doon seedeel kirist yàlla dëggal na ko ci yéen noonu nag ñàkku leen genn may léegi bi ngeen di séentu waxtu wi sunu boroom Yesu kirist di feeñ ci biir ndamam kirist dina leen dooleel ba ca mujj ga ngir ngeen bañ a am wenn ŋàññ bés bu sunu boroom Yeesu dellusee yàlla kuy sàmm ko kóllëre la moom mi leen woo ngir ngeen bokk ak doomam Yeesu Kirist sunu boroom waaye mbokk yi maa ngi leen di dénk ci turu sunu boroom Yeesu Kirist ngeen juboo te bañ a féewaloo ci seen biir waaye na ngeen ànd te booloo bokk xel bokk xalaat ndaxte mbokk yi waa kër Klowe xamal nañu ma ne dangeen di xuloo maa ngi ñëw ca wax ja kenn ku nekk ci yéen a ngi naan man ci pool laa bokk man ci apolos man ci sefaas man ci kirist ndax kirist dafa xaajoo ndax pool lañu daajoon ca bant ba mu dee ngir yéen ndax sóob nañu leen ci ndox ngir wone ne bokk ngeen ci pool maa ngi sant yàlla ci li ma sóobul kenn ci yéen ku dul Crispus ak Gayus ngir kenn bañ a wax ne ci sama tur lañu ko sóob axakañ sóob naa it ci ndox waa kër Estefanaas waaye ci sama pàttaliku sóobuma keneen ndaxte Kirist yebaluma ngir may sóobe ci ndox waaye dama yebal ngir may yégle xabaar bu baax bi te ma bañ koo def ak waxi xam-xamu nit ngir bañ a ñàkkal fayda deewu kirist ca bant ba ndaxte yëgleeb deewu kirist ca bant ba ak ndof la ci ñiy sànku waaye ci ñun ñi aw ci yoonu mucc gi doole yàlla la ndaxte mbind mi nee na dinaa folli xam-xamu boroom xam-xam yi lem xalaat yi ñi am xel ana boroom xam-xam bi ana kaang mi ana boroom làmmiñ wu neex wi ci àddina si xanaa yàlla wonewul ne xam-xamu àddina si ak ndof la ginnaaw àddina si xam-xamam demul ba xam yàlla te yàlla dogal loolu ci xam-xamam soob na yàlla mu musal ñi gëm jaar ci yégléeb xabaaru kirist fekk ak ndof la ci bëti nit ndaxte yawut yi ñu ngi laaj ay firnde greg yi di wut xam-xam waaye nun nu ngi yégle kirist mi ñu reyoon ca bant ba te loolooy téq ngëmu yawut yi di ak ndof ci ñi dul yawut waaye ci ñi yàlla woo ñu yawut mbaa di grek mooy doole yàlla di xam-xamu yàlla li ñuy wax ak ndof ca wàllu yàlla moo gën a tëdd xam-xamu nit te li ñuy wax ñàkk doole yàlla mu ëpp kàttan dooley nit mbokk yi seetleen seen nekkin bi leen yàlla di woo bariwul woon ci yéen ñi ñuy tudde ay boroom xam-xam mbaa ay boroom doole mbaa ñu rafet ab juddu waaye li àddina teg ak ndof yàlla tànn na ko ngir rusloo boroom xam-xam yi te li àddina teg ak ñàkk doole yàlla tànn na ko ngir boroom doole yi li dul judd bu rafet te mata ci àddina yàlla tànn na ko yàlla tànn na li nekkul ngir neenal li nekk noonu kenn du mëna a damu ca kanamu yàlla waaye yàlla moo def ba ngeen bokk ci kirist moom mi doon ci nun xam-xam bu jóge ca yàlla maanaam sunu njubte sunu sellaay sunu njot loolu dafa am ngir li mbind mi wax am ne kuy damu na damu ci borom bi benn korent man ci sama bopp mbokk yi bi ma ñëwee ci yéen ngir yégle mbooti yàlla ñëw ma ci ay wax yu neex ak xam-xam bu réy dogu woon naa ci bañ a xam dara ci seen biir lu dul Yeesu Kirist te muy ki ñu rey ca bant ba bi ma teewee ci yéen ànd na ak ñàkk doole ragal ak njàqare li ma wax ak li ma waare defuma ko ci làmmiñ wu neex sukkandikoo ko ci xam-xamu nit waaye ànd na ak ay firnde yu soqi ko ci kàttanu xelum yàlla ngir seen ngëm bañ a ci xam-xamu nit ñi waaye mu wekku ci doole yàlla moona am na xam-xam bu ñu yëgal ni mat xam-xam bu bokkul ci àddina si te njiiti àddina si xamuñu ko ñoom ñi nar a wéy nu ngi yégle mbootu xam-xamu yàlla mu nëbbu woon te yàlla dogal ko ngir sunu ndam laata àddina di sosu kenn ci njiiti àddina amul woon xam-xam boobu suñu ko amoon kon duñu rey boroom ndam li ci bant bi waaye mbind mi nee na li bët gisul nopp dégg ko te xel xalaatu ko loolu la yàlla dencal ñi ko bëgg fekk nag nun la ko yàlla woon jaarale ko ci xelam xelum yàlla mooy leeral lépp ba ci xalaati yàlla yi gën a xóot kan ci nit ñi moo xam fi nit xanaa xelum nit mi nekk ci moom rekk a ko xam noonu it kenn xamul yi yëfi yàlla ku dul xelum yàlla nun nag xel mi nu jot jógewul ci àddina waaye yàlla nu ko sol te loolu nu yàlla may yéglewuñu ko ci ay baat yu soqi ko ci xam-xamu nit waaye nu ngi koy yëgle ci baat yi soqi ko ci xelum yàlla di tekkantal yi fi xelum yàlla ci ay baat yi mu sol nit kese du nangu yi fi xelum yàlla ak ndof lay doon ci moom te du ko mën a nangu ndaxte ku yor xelum yàlla rekk moo ko mëna ràññaale nit ki yor xelum yàlla dafay àtte lépp te moom ci boppam kenn du ko àtte ndaxte mbind mi nee na ana ku xam xalaati borom bi ku ko doon digal waaye nun am nanu xalaatu kirist benn koren saar man nag mbokk yi mënu a wax ak yéen ni ay nit ñuy déggal xelum yàlla waaye waroon naa wax ak yéen ni ñuy topp seen nafsu mel ni ay liir ci seen dund ci kirist nàmpaloon naa leen waaye joxuma leen dugub ndaxte àttanu leen ko woon te ba léegi sax àttanu leen ko ci li ngeen di topp seen nafsu bu ñeetaan ak xuloo amee ci seen biir xanaa du loolu mooy wone ne dangeen a topp seen nafsu di doxale ni niti àddina bu kenn yëglee ne man ci pool laa bokk keneen ne man ci apolo ndax jëfewuleen ni niti àddina rekk kuy apolos ak kuy pool nun ay surga rekk lañu yu ngeen jaare bëggam te boroom bi moo sas ku nekk liggéeyam maa jëmbat apolo suuxat waaye yàlla moo jibil ki jëmbat nag ak ki suuxat kenn du ci dara waaye yàlla mi jibbil rekk moo am solo ki jëmbët ak ki suuxat benn lañu teewul nag ku nekk dina jot yool bu tollook liggéeyam nu ngi liggéeyandoo ci liggéeyu yàlla yéenay toolu yàlla yéenay taaxum yàlla man nag teg naa fondement bi ni tabaxkat bu man liggéeyam dëppoo ak sas wi ma yàlla jagleel ci kaw yiwam te keneen a ngi tabax ci kaw waaye na ku nekk teelu ci ni muy tabaxe ci lu jëm ci fondement bi kenn mënu fee tëral beneen bu dul bi fi xasa taxaw mu yéesu Kirist ku tabax ci kaw fondement bi wurus xaalis per dénk gi tax walla bopp sa liggéey dina fés ndaxte bés baa koy xamle bés boobu dina fenk ni safara te safara si dina nattu liggéeyu ku nekk ku sa liggéey dëgër dinga jot yool waaye ku sa liggéey làkk dinga ñàkk yow ci sa bopp dinga mucc waaye mel ni ku rëcc ci safara si xanaa xamuleen ne yéene kër yàlla te xelum yàlla dëkk na ci yéen ku yàq kër yàlla gi yàlla dina la yàq ndaxte kër yàlla gi dafa sell te yéeney kër googu kon bu kenn nax boppam su kenn ci yéen tegee boppam boroom xam-xam ci gis-gisu àddina si kooku na doon dof ngir am xam-xam bu wóor ndaxte xam-xamu àddina si ndof la fa yàlla moom la mbind mi ne yàlla jàpp na ñu muus ñi ba seen fiir këpp ci seen kaw boroom bi xam na xalaati boroom xam-xam yi xam ne duñu mujj fenn kon nag bu kenn tiitaru ndax nit ñi ndaxte yéen a moom lépp muy pool di apolos di sefaas di àddina di dund di dee di lu am di luy ñëw lépp yéen a ko moom te yéen kirist leen moom te kirist ko moom benn korent saar nañu ñu teg koon ay surgaay kirist di ay jawrin yuy xamle mbooti yàlla li war ci jawrin mooy mu takku ci liggéeyam ngeen àtte ma walla ñeneen àtte ma amaluma ko solo te man sax duma àtte sama bopp sama xel yedduma ci dara waaye loolu taxul ma jub ki may àtte mooy borom bi looloo tax bu leen daan kenn ci àtte balaa jamono ji di jot te borom bi ñëw mooy leeral yi nëbbu ci lëndëm di làññi mébétu xol yi bu ko defee ku nekk dina jot ci yàlla ngërëm li mu yelloo mbokk yi ci loolu ma leen doon wax lépp nag misaal naa leen ko ci apolos ak ci man ngir ngeen xool ci nun ba xam li wax ji di tekki bu seen xalaat weesu li mbind mi wax noonu kenn du màggal kii suufeel ki ci des ndaxte yow ku la def ba nga gën a màgg ñi ci des loo am lu ñu la mayul te bu ñu la ko mayee lu tax nga di ci tiitaru mel ni mayuñu la ko yéen suur ngeen xaat boom li ngeen xaat tàmbali ngeen di nguuru te ak seegunu cey ni ma bëggee ngeen di nguuru ba nu mën a bokk ak yéen di nguuru xalaat naa ne nun ndawi kirist yi yàlla def na ba nu mel ni nit ñu ñu jàppe ci xare te mujj ci sàppe yi ñu dogal seen dee nuy ceetaanam mbindeef yépp muy nit muy malaaka nun teg nanunu ni ay dof ndax kirist waaye yéen am ngeen xel ci kirist néew nañu doole waaye yéen am ngeen doole nawees na leen waaye nun dañu noo xeeb ba fii mu nekk danoo xiif marte rafle nu ngi nuy dóor te dëkkunu fenn nu ngi ñaq di jariñu ku nu saaga nu ñaanal la lu baax coono bu nu teg nu tegoo ko ku nu ñaawal ñu tontu la lu rafet fii mu ne noo mujj di mbaliti àddina di ñu ñàkk njariñ ci lépp binduma leen loolu ngir ngeen am yaraange waaye dama ko def ngir artu leen ndaxte yéenay samay doom te bëgg naa leen su ngeen amee junniy njiit yu leen di sàmm ci kirist ba tey benn baay rekk ngeen am ndaxte maa leen yégal xabaar bu baax bi ba jur leen ci kirist kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen roy ci man looloo tax ma yebal ci yéen timote mii sama doomi diine di doom ju takku te ma bëgg ko dina leen fàttali ni may dunde ci kirist te mu dëppook li may jàngale fu nekk ci mboolooy ñi gëm ñépp am na ci seen biir ñuy tiitaru di xalaat ne duma dellu seeti ci yéen waaye bu soobee borom bi léegi ma ñëw ci yéen te seet borom tiitar yooyu waxuma seen kàddu seen doole laay seet ndaxte nguuru yàlla du waxe kese waaye doole la lu leen gënal ma ñëw ci yéen yor ab yar walla ma ànd ak mbëggeel benn Korent juróom dégg nañu sax ñu naan am na kuy mooy yàlla ci seen biir mooy gu ñu toll duñu ko gis sax ci ñi xamul yàlla dem na ba am ci yéen kuy séy ak jabaru baayam moo ne yéen de yéen a ngi tiitaru waaye dangeen waroon a am naqar ba dàq kiy def loolu ci seen biir man nag jëmm ji sori na leen waaye xel mi mu ngi ci yéen te àtte naa xaat kiy def loolu ni suma teewoon ci seen biir dogal naa ngeen daje ci turu borom bi yéesu te sama xel teewe ko ànd ak doole borom bi yeesu ñu jébbal nit kooku seytaane yaramam yàqu ngir ruwa mucc keroog bisu borom bi seen tiitar bi jekkul dara xanaa xamuleen ni tuuti lawiir day tax tooyalu farine bépp funki ni ma leen ko mën a misaale jële leen fi bépp lawiir bu yàgg ngir ngeen sell ni tooyal bu bees bu amul lawiir ndax nekk ngeen ko ba noppi ndaxte kirist deyaal nanu ca bant ba mel ni mbote mu ñuy rendi jébbal ko yàlla ca màggalu bésu kon nanu màggal suñu màggal waxuma ak lawiir bu màggat bi misaal kiñaan ak lu bon waaye ak mburu mu amul lawiir maanaam ci xol bu laab ak ci dëgg bindoon naa leen ngeen bañ a seq dara ak njaalookat yi bëgguma ci woon a limaale waa àddina maanaam njaalookat yi nay yi njublan yi ak xërëmkat yi su ngeen sequl ak ñooñu dara kon faw ngeen génn àddina li laa leen bëggoon a wax bu leen seq dara ak ku ñu tudde mbokk mu gëm kirist te fekk day njaaloo walla mu nay walla muy xërëm walla muy xas nit walla muy màndi walla muy njublan nit ku mel noonu moom bu bokk ak moom sax far di lekk ndax man maa war a àtte ñi bokkul ci mbooloom ñi gëm kirist déedéet waaye ñi bokk ci seen mbooloo yéena leen war a àtte ñi bokkul ci mbooloom ñi gëm yàlla moo leen di àtte waaye yéen ni ko mbind mi waxe dàq leen ci seen biir kiy def lu bon benn koren te it bu kenn ci yéen amee lëj-lëj digganteem ak mbokku taalibeem lu tax muy dem ca àttekaay yi xamul yàlla te bañ a dem ca gaay yi ñu àtte ko xanaa dangeen xamul ne gaay yàlla yi ñooy àtte ji àddina te ndegam yéenay àtte ji àddina lu tere ngeen mën a àtte mbir yu ñàkk solo yi xanaa leen ni nooy àtte ji malaaka yi waxatumaak mbiri àddina si bu ngeen amee ay lëj-lëj yu mel noonu dangeen di wuti ay àttekat ci ay nit ñi amul wenn yoon ci mbooloom ñi gëm ma ni kon war ngeen a ruus xanaa amul ci seen biir kenn ku am xel ku mën a àtte mbokkam yi waaye defuleen loolu mbokk a ngi layoo ak moroomam rax ca dolli ci kanamu ñi gëmul lañu koy defe laaya bi sax wone na ni bàyyi ngeen seen warugar lu tax muñu leen sax tooñ yi ñu leen di tooñ lu tax far leen ñu sàcc leen waaye yéen sax yéenay tooñ ak di sàcc te seeni mbokk ngeen koy def xanaa xamu leen ni ñu jubadi duñu bokk ci nguuru yàlla bu leen ci kenn nax ñii doxaan walla xërëmkat yi ak njaalookat yi ak góor jigéen ñi ak ñi ko nangu walla sàcc yi ak ñu bëgge ñi ak màndikat yi ak ñiy xaste ak njublaŋ yi du ñu bokk ci nguuru yàlla te am na ñu meloon noonu ci yéen waaye yàlla fóotal na leen seeni bàkkaar sellal leen àtte leen ni ñuy jub ci turu borom bi Yeesu Kirist ak ci doole xelum yàlla sunu boroom am na ci yéen ñu naan sañ naa lépp waaw waaye du lépp a jariñ nit sañ naa lépp waaye duma bàyyi dara mu noot ma am na ci yéen ñu naan ñam mooy jariñ biir te biiree jariñoo ñam waaw te yàlla dina leen yàq ñoom ñaar yépp waaye sàkkuñu yaram ngir mooy yàlla dañu ko sàkk ngir muy jariñ borom bi borom bi di ko jariñoo te yàlla mi dekkal borom bi dina dekkal it sunu yaram jaare ko ci dooleem xanaa xamuleen ni seen yaram ñooy cëri kirist ndax kon damay jël cëri kirist def ko cëri jigéeni moykat mukk xanaa xamuleen ni kuy ànd ak jigéen juy moy dafay booloo ak moom nekk benn ndaxte mbind mi nee na ñoom ñaar dinañu doon benn waaye nag kuy ànd ak borom bi xel yi dañuy booloo nekk benn daw leen njaaloo bépp bàkkaar bu nit mën a def du laal yaramam waaye nag kuy njaaloo dafay bàkkaar di lor yaramam xanaa xamuleen ni seen yaram mooy kër yàlla gi ginnaaw xel mu selli maa ngi ci yéen te yàlla leen ko may kon moomu leen seen bopp ndaxte yàlla jot na leen ak njëg gu réy kon nag màggaleen yàlla ci seen yaram benn Korent saar nanu jàll nag léegi ci laaj yi ngeen ma doon bind ci bañ ànd ak jigéen ndax lu baax la ci góor lii mooy sama xalaat mooy gu bari gi tax na ba na góor gu nekk am jabaram jigéen ju nekk am jëkkëram jëkkër war naa def warugaru jëkkër ci jabaram jabar it def warugaru jabar ci jëkkëram jigéen ji amul sañsañ ci yaramam moom kenn jëkkëram moo ko moom niki noonu it jëkkër ji amul sañ-sañ ci yaramam jabaram moo ko moom bu kenn tere boppam moroomam su dul ni dangeen a mànkoo ci def noonu ab diir ngir gën a mën a wéet ak yàlla ci ñaan waaye su loolu weesoo nangeen doxal yoonu séy lu ko mooy seytaane dina leen fiir ndax seen ñàkk màndute li ma leen di wax fii du ndigal waaye dama leen di xamal li ñu leen may ngeen def ko ndaxte dëgg-dëgg suma sañoon kon ñépp mel ni man waaye ku nekk ak li la yàlla jagleel kii ak may gii kee ak may gale lii laay yëgal ñi sëyul ak ñi seen jëkkër dee baax na ci yéen su fekkee dangeen a toog rekk ni man bañ a sëy waaye su ngeen mënula téye seen bopp na ngeen sëy ndaxte sëy moo gën xemem di leen gaañ ñi sëy nag maa ngi leen di jox ndigal lii borom bi moo ko waxoon du man jigéen ju séy warula tàqalikoo ak jëkkëram te bu tàqalikoo ak moom bu mu séyaat mbaa boog na juboo ak jëkkëram te bu jëkkër di fase jabaram ñi ci des nag lii laa leen di wax borom bi waxu ko woon su nit ku gëm kirist amee jabar ju gëmul te mu nangoo séy ak moom waru koo fase naka noonu it su jigéen ju gëm kirist amee jëkkër ju gëmul te mu nangoo nekk ak moom warula tas li tax ma wax ko moo di jëkkër ju gëmul yàlla sellal na ko ndax li mu ànd ak jabaram te it jigéen ji gëmul yàlla sellal na ko ndax li mu ànd ak jëkkëram ji gëm lu ko moy seeni doom dinañu am sobe te fekk dañoo sell waaye nag su fekkee ki gëmul bëgg na dem na dem ci wàllu googu nag ki gëm kirist muy jëkkër ji walla jabar ji amul benn tënk ndaxte yàlla moo leen woo ngir ngeen dund ci jàmm loo ci xam yow jigéen ji ndax dinga gëmloo sa jëkkër musalkat bi walla déet loo ci xam yow jëkkër ji it ndax dinga gëmloo sa jabar musalkat bi walla déet ku nekk nag na dund ni ko ko boroom bi jagleele mu méngoo ak ni mu meloon bi ko yàlla wooyee moom lay tëral ci mbooloo ñi gëm yépp ki xaraf bi ko yàlla wooye warula jéem a far màndargaam xaraf bi ki xaraful bi ko yàlla wooyee aajuwul mu xaraf xaraf ñàkk xaraf lépp li am solo moo di topp ndigali yàlla na kenn ku nekk jàpp ci li mu nekkoon bi ko yàlla wooyee ndax jaam nga woon bi la yàlla wooyee na ci sa xel dal waaye soo amee bunt ba yiwiku nanga ci jaar ku nekkoon jaam bi la borom bi wooyee borom bi goreel na la ba tey it ku nekkoon gor bi ñu la wooyee jaamu kirist nga ginnaaw yàlla jot na leen ak njëg gu réy bu leen doon jaamu nit mbokk yi faw ku nekk wéy ca kanamu yàlla ci fànn ga mu nekkoon bi ko yàlla wooyee ci li jëm ci janq yi awma ndigali borom bi waaye maa ngi joxe sama xalaat ni ku ñu wóolu ndax li ma jot yërmandey borom bi bu nu seetee tiis wii fi teew nag defe naa ne li baax ci nit moo di mu sax ci li mu nekk ndax takk nga jabar bul wëtu tàggoo ak moom ndax takkuloo jabar bul wut jabar waaye nag boo séyee defoo bàkkaar te bu janq séyee deful bàkkaar waaye ñi sëy dinañu am naqar ci àddina te naqar woowu dama leen ko bëggoon a fangal yéen ñi sëyagul lii laa bëgg a wax mbokk yi diir bu gàtt rekk a fi des lu weesu tey na góor ñi am jabar di def ni bu ñu ko amul woon ñiy jooy mel ni ñu jooyul ñiy bég mel ni ñu bégul ñiy jënd ni ñu moomul li ñuy jënd ñi jariñoo àddina bañ cee xër ndaxte àddina si ci ni mu mel dootul yàggati bëggoon naa ngeen bañ a am benn xalaat góor gu takkul jabar dafay bàyyi xel ci mbiri borom bi di wute neex borom bi waaye ku takk jabar faaw mu bàyyi xel ci mbiri àddina si ak nu mu mën a neexe jabaram te noonu dafay daldi bari soxla te jigéen ju sëyul walla janq dafay bàyyi xel ci mbir borom bi bëggu koo jox yaramam ak xelam waaye jigéen ji sëy dafay bàyyi xel ci mbiri àddina ak nu mu mën a neexe jëkkëram seen njariñ a tax ma wax lii du ngir teg leen yen bu ngeen àttanul waaye ngeen mën a jàppandil borom bi ci njaamu gu rafet gu àndul ak genn njaaxle nanu jàll nag ci mbiri kiy takk ngoro te amul fu takk ndaw si su fekkee ne waxambaane wi xalaat na ni jëfewul nu jekk ak janq bi fekk muy wees ak ndawam te mu xalaat ni daf ko war a takk kon na ko takk ni mu ko bëgge deful bàkkaar waaye nag su dogoo dëgg ci bañ a takk fekk sagoom rekk a tax te kenn tegu ko ko kon ba tey def na lu baax noonu ku takk as ndawam def na lu baax rawatina nag ku takkul jigéen ji séy dina ànd ak jëkkëram giiru dundam waaye su jëkkër ji faatoo mën naa séy ak ku ko neex su fekkee ne góor gu gëm la moona nag dina gën a bég bu toogee noonu rekk loolu mooy sama xalaat te defe naa ni man itam am na xelum yàlla benn koren léegi nag ci li jëm ci yàpp wi ñu jébal xërëm yi nun ñépp am nañu xam-xam loolu dëgg la xam-xam day tax ba nit yëg boppam waaye mbëggeel day yëkkati ngëm ku xalaat ni xam nga dara sa xam-xam bënnagul waaye ku bëgg yàlla yàlla xam la kon nag ci li jëm ci lekk yàpp yu ñu jébbal xërëm yi xam nañu ne xërëm du dara ci àddina te xam nanu itam ne yàlla kenn rekk la su fekkee ne am na sax yu ñuy teg yàlla muy ci asamaan mbaa ci suuf ndaxte am na yu bari yu ñu faral di bokkaaleel yàlla ak borom bi ba tey ci nun jenn yàlla rekk a am muy baay bi lépp a ngi jóge ci moom te moom lañu nekkal te it benn borom rekk a am muy Yeesu Kirist lépp a ngi jaare ci moom te nu nit nu ngi dunde jaare ci moom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 benn Korent saar juróom ndax awma ndogal ci li may def ndax duma ndawul kirist ndax gisuma yeesu sunu boroom xanaa du yéen a ci liggéey bi ma boroom bi sant su ma ñenn ñi tegul ndaw moom laa ci yéen ndaxte yéenay firnde ji wone ne ndawul boroom bi dëgg la nii lay tontoo ñi may àtte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 léegi nag ma woon leen yoon wi gën lépp su fekkee ne damay wax làkki nit ñi ak yu malaaka yi sax te boolewuma ci mbëggeel duma dara lu ndënd muy riir walla jóolali buy kàndaŋ-kàndaŋi su ma yëglee wax ju tukkee ci yàlla ma xam lépp luy kumpa ma yor xam-xam bépp te gëm yàlla ba mën a randal ay tund fekk boolewuma ci mbëggeel duma dara te su ma doon saraxee li ma am lépp di bàyyi ñu lakk sama yaram ba rey ma su ma ci boolewul mbëggeel duma jariñ dara ku bëgg dafay muñ te laa biir ku bëgg du kiñaan du kañu du tiitaru du def lu jekkadi du wut njariñu boppam du naqari deret du ñaaw njort du bég ci lu awul yoon waaye dina bég ci lépp luy jollil dëgg mbëggeel day bale lépp am ngëm ci lépp yaakaar lépp muñ lépp mbëggeel amul àpp ñuy wax ci kàddu yàlla dinañu noppi ñuy wax ay làkk dinañu ko bàyyi ñi xamle xam-xamu yàlla wàcc xam-xam bi nu am des na te ni nu jottalee xabaar bi nu yàlla dénk des na waaye li mat bu dikkee li matul jóge fi bi ma dee xale dama doon wax ni xale di dégge ni xale di xalaate ni xale waaye bi ma doonee mag bàyyi naa li bokkoon ci ndaw tey jii gis bu lëndëm lanuy gis ni takk ndeer ci seetu bu lëndëm bu ëllëgee dinanu gis jaxran tey ji sama xam-xam des na bu ëllëgee dinaa xam ba mat sëkk ni ma yàlla xame léegi nag ñett yi ñooy sax ngëm yaakaar mbëggeel te mbëggeel moo ci raw benn leen mbëggeel te fonk mayi xelum yàlla rawatina mayu wax ci kàddug yàlla ndaxte kiy wax aw làkk waxul ak nit ñi waaye yàlla lay waxal ndaxte kenn déggul li muy wax dafay wax ay mbóot ci xelam waaye kiy jottali kàddug yàlla nit ñi lay waxal ngir yëkkati seen ngëm di leen dénk ka dëfal kiy wax aw làkk dafay yokk boppam waaye kiy wax ci kàddu yàlla dafay yokk ngëmu mbooloo mi léegi nag bëgg naa yéen ñépp ngeen di wax ay làkk waaye li ma gënal mooy ngeen di wax ci kàddu yàlla kiy wax ci kàddu yàlla moo gën kiy wax ay làkk su firiwul li muy wax ngir ngëmu mbooloo mi yokku kon nag mbokk yi su ma ñëwee ci yéen di wax ay làkk lu ma leen di jariñ dara su ma leen indilul dëgg gu yàlla feeñal walla xam-xam walla kàddu gu tukkee ca yàlla walla am njàngale noonu la mel itam ci yëf yi dundul tey riir ni toxoro walla xalam su li ci jibee leerul naka la nit mën a ràññee limbi bi toxoro walla buumi xalam di wax raxte dolli su liit gi jibul bu leer kuy mën a waajal xare ba noonu itam bu ngeen génnewul ay wax yu leer ci seen gémmiñ nan lañuy mën a xame li ngeen di wax dingeen wax ci neen xawma ñaata xeeti làkk am ci àddina te wu ci nekk am na lu muy tekki su ma xamul nag làkk wi ñu may làkk doxandéem lay doon ci ki koy wax te ki koy wax it doxandeem la ci man yéen itam ginnaaw dangeen a fonk mayi xelum yàlla jéem na a ëpple ci liir yokk ngëmu mbooloo mi looloo tax kiy wax aw làkk na ñaan ngir mu mën a firi li looluy tekki su may ñaan yàlla ci aw làkk sama xol day ñaan waaye sama xel amulul kenn njariñ kon nag lu muy indi bu may ñaan dinaa ànd ak sama xol àndaale ak sama xel bu may woy dinaa ànd ak sama xol àndale ak sama xel walla boo dee gërëm yàlla ànd ci ak sa xol rekk kon ku musula jàng mbir yooyu nan la mën a waxe amiin ci sa cant yàlla googu ndaxte xamul li ngay wax dëgg la dangay sant yàlla bu baax waaye ki ci des ngëmam yokkuwul maa ngi sant yàlla ci li may wax ay làkk ba raw leen yéen ñépp waaye ci ndaje mbooloom ñi gëm wax juróomi baat yu am njariñ ngir jàngal ñi ci des moo ma gënal wax fukki junniy baat ciw làkk mbokk yi bu leen meleti ni ay xale ci ni ngeen di xalaate ci lu jëm ci lu bon mel leen ni ay xale waaye ci seeni xalaat mel ni ay mag bind nañu ci téereb yoon wi dinaa wax ak mbooloo mi jaare ko ci ay nit ñuy wax yeneen làkk ak ay gémmiñ ñi doxandeem waaye ba tey duñu ma déglu moom la borom bi wax ci noonu wax ay làkk firnde la ci ñi gëmul te du firnde ci ñi gëm te it wax ci kàddug yàlla du firnde ci ñi gëmul waaye firnde la ci ñi gëm kon nag su fekkee ku jàngul mbiri kirist walla ku gëmul dugg ca mbooloo ma fekk ñépp di wax ay làkk ndax du wax ne dangeen a dof waaye bu ñépp dee wax ci kàddug yàlla te ki gëmul dugg fa walla ku jàngul mbiri kirist wax yi ñépp wax dafay wone bakkaaram te àtte ko ba kumpaay xolam feeñ bu ko defee dina dëpp jëm ci suuf di màggal yàlla te naan dëgg-dëgg yàllaa ngi ci seen biir kon nag mbokk yi lu muy indi bu ngeen dajee kii am aw taalif kii am njàngale kii dëgg gu yàlla feeñal kii di wax aw làkk kee di ko firi na loolu lépp aw ci yoonu yokk ngëmu mbooloo mi su amee kuy wax aw làkk na ñaar wax walla gën gaa bari ñett nañu ko toppante te kenn di firi su amul kuy firi kooku di wax aw làkk na noppi ci ndaje mbooloo mi na waxanteeg yàlla ci xolam ci ñiy wax ci kàddug yàlla nag na ñaar walla ñett wax te ñi ci des ràññee li ñuy wax su amee ku toog te yàlla feeñal ko dëgg na ki doon wax noppi yéen ñépp mën ngeen a kenn kennoo wax ci kàddug yàlla ngir ñépp jàng te dégg li ñu leen di dénk ñiy jottali kàddug yàlla dañoo moom seen xel ndaxte yàlla du yàllaay lëj-lëj waaye yàllaay jàmm la ci mboolooy gaay yàlla yépp na jigéen ñi noppi ci ndaje mi ndaxte sañuñu faa wax nañu doon jigéen ñu nangu ñi ko yoon wi tërale te suñu bëggee laaj dara nañu ko laaj seen jëkkër ca kër ga ndaxte jigéen di wax ci ndaje mbooloom ñi gëm gàcce la ndax ci yéen la kàddug yàlla gi sosoo walla ndax ci yéen rekk la agsi su kenn xalaatee ni mooy wax ci kàddug yàlla gi walla mu xalaat ne xelum yàlla jagleel na may na nangu ne lii ma leen bind ndigalu borom bi la te su ko xeebee it ñu xeeb ko kon nag mbokk yi faru leen ci di wax ci kàddug yàlla te bu leen tere kenn muy wax ay làkk waaye nag na lépp di dox ci teggin te aw yoon benn Korent juróom léegi nag mbokk yi maa ngi leen di fàttali xabaar bu baax bi ma leen yëgal xabaar bu baax boobu nangu ngeen ko te yéen a ngi ci sax ci moom ngeen jaare ba mucc bu ngeen téye bu dëgër njàngale mi ni ma leen ko yëgale walla xanaa boog gëm ngeen ko ci neen li ma jotoon jottali naa leen ko te moo jëkk ci maanaa yi kirist dee na ngir dindi sunuy bàkkaar ni ko mbind mi tërale suul nañu ko mu dekk ca ñetteelu fan ba ni ko mbind mi tërale feeñu na sefaas teg ca fukki taalibe ya ak ñaar gannaaw ga feeñu na lu ëpp juróomi téeméeri mbokki taalibe ci benn yoon te ñu bari ci ñoom ñu ngi dund ba léegi waaye am na ñu ci nelaw ba noppi feeñu na saak ak ndawi kirist yépp man nag la mujj feeñu ma mel ni liir bu judduwul ci jamonoom ndaxte maa gën a ñàkk solo ci ndawi kirist yi te yeyewuma sax ñu may wooye ndaw man mi doon fitnaal mbooloom yàlla waaye nag yiwu yàlla moo tax ma doon li ma doon te yiw wi mu wone ci man du cig neen waaye sax maa gën a liggéey ñi ci des ñépp du ci man waaye yiwu yàlla wiy jëf ci man moo tax noonu nag muy man muy ñoom dénkaane boobu lañuy yégle te moom ngeen gëm waaye sunu yéglee ne kirist dekki na nan la ñenn ci yéen mën a waxe ne néew yi duñu dekki su fekkee ne ñi dee duñu dekki kon kirist yit dekkiwul te su kirist dekkiwul sunu waare day neen te seen ngëm day neen rax ca dolli gis nañu ne seedeel nañu yàlla ay fen ndaxte seede nañu ci mbiram ne dekkal na yéesu te fekk dekkalu ko su néew yi dul dekki su néew yi dul dekki kirist moom it dekkiwul te su kirist dekkiwul seen ngëm du am solo ba tey yéen a ngi ci seeni bàkkaar te it ñi dee ba noppi ci kirist sànku nañu su fekkee ci giir dund gi rekk la sunu yaakaar ci kirist ame solo kon noo gën a mat yërëm ñépp waaye léegi kirist dekki na di ku jëkk a dekki ni guub yi ñu jëkk a tànne ci ngóob mi jagle leen yàlla ginnaaw ci nit la dee jaar dugg àddina kon it ci nit la ndekkite jaar kon ni ñépp dee ci seen bokk ci aadama noonu la ñépp di dundaate ci seen bokk ci kirist waaye ku nekk ak ayam kirist moo jëkk mel ni guub yu ñu jëkk a tànne ci ngoob mi ba noppi bu kirist dellusee ñi bokk ci moom jël seen ay gannaaw ga mujjug jamono taxaw te kirist dina noot gépp kilifa ak bépp sañ-sañ ak doole ba noppi delloo nguur gi kii yàlla di baayam ndaxte faw kirist nguuru ba kere yàlla di daaneel noonam yépp ci tànkam noon bu mujj bi mu fiy jële mooy dee ndaxte mbind mi nee na yàlla nootal na ko lépp mu teg ci tànk waaye bu bind mi nee noot na lépp wóor na ni moom mi ko nootal lépp génne na ci boppam léegi bu ñu ko nootalee lépp nag moom kirist muy doom ji dina delloo kilifteef gi yàlla mi ko nootal lépp ngir yàlla nekk buur ci lépp su ndekkite amul kon ñi ñu sóob ci ndox ngir ñi dee lu mu leen di jariñ su dekki amul kon lu tax ñu leen di soob ngir ñi dee te nu nit lu tax fu nu tollu nu jaay sunu bakkan mbokk yi ni ma damoo ci yéen ndax Yeesu Kirist ni la ma wóore ne bés bu nekk ma riisu dee su fekkee ne ci ni ñu ko waxe xeex naa ca dëkku Efes ak rabi àll kon ban njariñ la may amal su néew yi dul woon dekki am na lu ci léeb wax nanu lekk di naan ndaxte ëllëg dinanu dee bu leen ko réere mbir ànd bu bon dina yàq nit ku baax delloo ci leen xel yi te bàyyi bàkkaar ndaxte am na ci yéen ñu umpale yàlla kon war ngeen a ruus waaye dina am kuy naan nan la néew yi di dekkee wan yaram lañuy dellusee yaa gàtt xel li ngay ji du jebbi dund gu bees fii ak deewul ba noppi te li ngay ji du jëmmi gàncax giy ñëwi waaye pepp kese la maanaam dugub walla weneen jiwu noonu yàlla jox ko jëmm ju ko neex jiwu wu nekk ak jëmmam jëm mbindeef yépp a wuute nit ak jëmmam malaa picc jën yu ci nekk ak sa jëmmi bopp am na itam ay jëmm ci asamaan ak ay jëmm ci suuf leeru jëmm ci asamaan wuute na ak gi ci suuf jant bi weer wi ak biddiw lu nekk ak sag leer te it leeru biddiw bu nekk dina wuute ak moroomam noonu la ndekkiteel néew yi di deme bu ñu suulee néew bi dañoo ji lu yàqu bu dekkee du yàqooti ba abadan lu ñàkk solo lañuy suul mu dekki ak ndam lu néew doole lañuy suul mu dekki ak kàttan bu ñu koy suul yaram lay doon wu soloo woon ruu bu dekkee doon yaram wu soloo ndamu xelum yàlla ndegam am na yaram wu solo ruu kon dina am yaram wu soloo ndamu xelum yàlla mbind mi nee na nit ku jëkk ka aadama doon na boroom ruu waaye aadama mu mujj mi doon na xel muy joxe dund yaram wi seloo ndamu xelum yàlla jiituwul yaramu doomu aadama moo jiitu yaramu ndam li moo ci topp nit ku jëkk ko pënd suuf la woon ñaareelu nit ki di kirist mi ngi jóge asamaan waa àddina yor nañu jëmmi nit ki ñu sàkke ci suuf noonu it ñu bokk ci asamaan dinañu yor melokaanu ki jóge ci asamaan te ni nu yore melokaanu ki ñu sàkke ci suuf noonu lañu yore ji melokaanu ki jóge ci asamaan li may wax nag mbokk yi moo di ne sunu yaram wii mënula am wàll ci nguuru yàlla te lu yàqu mënula am wàll ci li sax abadan lii ma leen di xamal mbooti yàlla la déglu leen duñu jaar ci dee nun ñépp waaye nun ñépp dinañu soppeeku ci saa su gàtt ci xef xippi bu liit gu mujj gi jibee ndax liit gi dina jib néewi dekki di dund abadan te nun dinanu soppeeku yaram wu yàqu war naa sol jëmm jëdul yàqooti te yaram wii dee sol dund gu sax abadan bu li yàqu solee melokaanu li dul yàqu te lii dee sol melokaanu liy sax abadan kon lii ñu wax ci mbind mi mat yàlla noot na dee balaabal ko ci ndamam céy yow dee ana sa ndam céy yow dee ana sa dangar ji ngay fitte dangaru dee mooy bàkkaar te dooley bàkkaar mooy yoon wi waaye jërëjëf yow yàlla di ñu jox ndam li jaadale ko ci suñu boroom Yeesu Kirist kon nag sama bokk yi ma sopp na ngeen takku samp ba dëgër te gën a sawar ci liggéeyu borom bi xam ne seen liggéey bi jëm ci borom bi du neen benn korent saar léegi nag ci li jëm ci ndimbal li ñuy sàkkal gaayi yàlla yi def leen li ma tëral ci mboolooy ñi gëm te nekk ci diwaanu galasi bés bu jëkk ci ayu bés yi na ku nekk ber lu mu àttan denc ko ngir saa su ma dikkee ñu bañ di wër di laaj xaalis su ma dikkee dinaa dénk seen xaalis ñi ngeen tànn yónni leen Yerusalem boole ko ak bataaxal su ajoo ma demal sama bopp kon dinañu ànd ak man gannaaw bu ma jàllee diiwaanu Masedowan dinaa ñëw ci yéen ndaxte fas naa ko yéenee jàll mën na am ma yàgg ci yéen jombul sax ma lolli ko fi yéen noonu dingeen taxawu sama yoon fu ma mën a jëm ndaxte fii mu ne bëgguma leen a gis rekk jàll waaye yaakaar naa ne dinaa toog ci yéen ab diir bu neexee borom bi ba tey dinaa toog fii ci dëkku efes ba màggalu Pentecôte ndaxte yàlla ubbil na ma bunt ba mu ne làññ ngir may def liggéey bu mën a am mujj gu rafet te noon yu bari bëgg gàllankoor liggéey bi bu leen timote ganesee fexe leen ba bu mu am njàqare ci seen biir ndaxte dafay liggéeyal borom bi ni man kon bu ko kenn xeeb na ngeen taxawu yoonam ba mu dellusi ci man ci jàmm ndaxte maa ngi koy xaar ak mbokk yi naka apolo sunu mbokk mi nag moom xiir naa ko ay yooni yoon mu ñëw ci yéen ànd ak mbokk yi waaye fi mu ne dëppawul ak coobareem dina ñëw saa su ko manee farlu leen te dëgër ci ngëm di góor góorlu te am pasteef lépp li ngeen di def def leen ko ak mbëggeel xam ngeen ni estefanaas ak njabootam ñoo jëkk a nangu xabaar bu baax bi ci diiwaanu akayi te ñoo joxe seen bopp ngir liggéeyal gaay yàlla yi kon nag mbokk yi maa ngi leen di ñaan ngeen nangul nit ñu mel noonu ñoom ak képp ku ànd ak ñoom ci liggéey bi bi ma estefanaas ak fortunatus ak akaykus seetsee bég naa ci lool taxawal nañu leen ci toppatoo bi ngeen yéene woon ci man te tële ko seral nañu sama xol ak seen yos itam kon fonk leen nit ñu mel noonu mbooloo yi ñi gëm te nekk diwaanu asi ñu ngi leen di nuyu akilaas ak pirsil ñu ngi leen di nuyu bu baax ci borom bi ñoom ak mbooloom ñi gëm tey daje seen kër mbokk yépp ñu ngi leen di nuyu saafoonte leen ak xol bu laab man pool maa bind nuyoo bii ci sama loxo bopp képp ku bañ borom bi yàlla na ko yàlla alak borom bi ñëwal na yiwu borom bi yeesu ànd ak yéen bëgg naa leen yéen ñépp ndax suñu booloo ak yéesu kirist